way woowu jagleel ko la jeunesse mu nekk une chanson symbole moo la jeunesse sénégalaise a dit non à la violence la jeunesse sénégalaise a dit non à la médiocrité la jeunesse sénégalaise dit non à l'obscurantisme mais la jeunesse sénégalaise dit oui au président Macky parce que li mu mu def pour jeunes li mu def pour jigéen ñi amul benn président bu fi def bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi war nañu delloowaat suñu xel ci yàlla parce que addina bi dafa nekk ci ay tolof tolof mbas mi ñëw na fi ñu ne deet guerru Ukraine bi ñëw fi tax njëg yi yokk partout dans le monde mu am un déséquilibre général heureusement ñu am un président visionnaire ba nga xam ni à chaque fois su problème amee day indi une thérapeutique spécifique et appropriée nañu ñaan yàlla delloo si ci xel yi mbas mi jóge fi guerru Ukraine bi mën mën ko fay parce que ay du yem ci bopp borom képp ku leen di diggal ay boobu xamul lu muy def développement mënut a ay croissance mënut a ànd ak ay te Sénégal xamul loolu Sénégal réewu jàmm la Sénégal réewu teraanga ñu ngi sant yàlla bi ñu yàlla mayee ay magu diine yu yoo xam ni dañoo mooñ Sénégal ci jàmm mu doon Serigne Touba Alaaji Malick Seydina Limaamu Laay Baye Niass képp koo xam ne nag yaakaar nga ni mën nga ñëw fii tas réew mi yaa ngi nax sa bopp ñoom ci jàng alxuraan lañu lañu sax jàpp ci mbey mi ak ak ci daara yi su ngeen xoolee président Macky Sall tànk yooyu la topp bi mu ñëwee mbéy mi la gën a njëkk a révolutionné révolution agraire bi président def amu fi parce que bi président di ñëw en 2012 boobu fekk na quatre cent soixante neuf mille tonnes rek lañ doon produire di importer huit cent mille mu nekk ay milliards yoo xam ne yi bépp ceeb boo importer rek yaa ngi enrichir le la le paysan indien wala le paysan euh, euh, indonésien et cetera loolu dañ na fi presque courant bi yoo yi infrastructure yi PUDC amu fi woon couverture maladie universelle amu fi woon marqueurs sociaux yi fi nekk yëpp tey amu fi woon waaw ñu gis président bu am ni jox ñu añ jox ñu reer dig ñu leneen waruñu ko jàppale wax ji wax ji wax ji loolu la te xam naa ni Euh, incha allah le 31 juillet Sénégal yëpp dinañu wooteel le président Macky parce que sénégalais yi dañoo mën a choisir dañoo def la différence entre la bonne graine et l'ivraie di gërëm sama jigéen Mimi Touré tàccu leen mooy jigéen ji mën góor di gërëm Amadou Ba jàmbaar la ci président Alioune Ndoye yi ngi ñëw Alioune yegsi na wax ji wax ji mooy léegi nelaw amatul man waxuma waxu Fatick parce que Fatick xam naa ne moo ne rumo mais fii Dakar moom Dakar wund dootu fi naan jeex Dakar wund dootu fi naan ñeex parce que fu ñu war a dugg yëpp dañ fa dugg ñi ñu war a waxal dañu wax ak ñoom ñu ñu war a jàkkaarloo dinañ jàkkaar ak ñoom wala ne magee fi nekk te mag yi am na ay nit yu ko mën aussi